sax dafay légitimer euh, yenn discours yi ñu doon dégg ci jamono yi ñuy wax waxu euh, nerveux ak euh, milice parce que aussi déggoon nañu ay responsable toog doon wax ni que sécurité privée la que ay sénégalais ñoo organisé wu rek doon defaan li nga xamante ne mooy seen moomeel wala seen gox. Pa Matar xam nga Moustapha ak Pape Sané léegi dañ ko junju mi ngi aju ci journaux yi nga xamante ne ñun taskatu xibaar yi mooy suñu moomeel li ñu xëyee tey ji propos yooyu d'une extrême ñu euh, ñu balayer ko d'un revers de main mais tey jii quand Ousmane Sonko a apple massivement à une forte mobilisation tey loolu tey soo xoolee la une des presses loolu moo ci nekk mais lii président wax cofuñu ko sofuñu ci defuñu ci dara dañ ko passer sous silence mm-hmm. mise à part Walfadjri Pamatar euh, suñu déggee ne depuis 2021 ay euh, euh, ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères ministre de la justice ministre des forces armées ñoom ñëpp ku ci génn waxoon nga ne suñu dëkk bi am na force occulte am na des milices am na des salafistes am na des terroristes yu fi nekk tey jii tey jii lu ñu doon xaar si suñu njiitu réew moom mu génn wax loo xamante ne day apaiser mais déedéet nga xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore gox yeeg goxaat yi nga ne leen ngànnaayu leen armé leen seen bopp pour aar li nga xamante ne moo di seenub gox mais gox yooyu ñi fay yeewoo ñëpp ànduñoo ak ba fay yeewoo gox boobu ñi fay yeewoo ñëpp ànduñoo président conseil départemental ba kon loolu gox xeexu gox gox la nar a indi mu nar a indi loo xamante ne keroog waxoon naa ko fi li xewoon fi nga xamante ne moo di Rwanda xew fi nga xamante ne moom moo di euh, Côte d'Ivoire nar fee juddu te ki nga xamante ne tey moom mooy garant muy président de la République tey li ma mun a wax sax moo di ne tey suñu armee suñu police suñu gendarmerie ñoom war nañu sentir très petit parce que tey jii suñu demee ba kilifa gi wax li yi kàddu jëmale ko ci seen kaw loolu mooy yéen amatu leen li nga xamante ne moom moo di njëriñ ci biir réew mi. Mhm. parce que bu ñu demee ba nga xamante ne loi du talion moo fi nar a xew ku nekk fayool sa bopp euh, président dafa àggul ci moo bi rek moo di gatsa gatsa nañ ko fayantal suñu bopp. loolu moom mooy euh, wax ji pamataan mais tey jii ndax war na leen bett tey jii ñu naan président daf ñuy wax ak ñun ax dédain walla ak mépris mhm. président moom moo fi njëkk toog mu ne mhm. ku mënul fay péyage bi nga jaar ci suuf nga jaar ci suuf ku bëgg sécurité confort yeeg ci péage bi ku ko amul nga jaar ci suuf nga jaar ci suuf mhm. beneen bi mu toog mu ne période covid bi ku pikiirowul seen affaire la ma jël pikiir yi maye ko ñu koy fàttaliku muy kàddu yoo xamante ne moom moo ko fi yëkkati woon mm-hmm. ak yeneen yoo xamante ne mun nañu toog di leen defal jeunesse bi ti wax mm-hmm. tey jii su yëkkatee yeneen kàddu jëmale ko ci askan wi ñu jàpp ne nawloowuñu wegguñu mm-hmm. ndax day doon mbetteel mais parce que on a laissé faire xam nga li may wax chaque jour gis nga ku bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari boor li ñu naan il faut battre le fer quand il ñun dañu ñeme bay bayal ñeme laamisoo am na yenn yoo xamante ne bu fekkee ne sa droit la sa ak ak sa yelleef la sa propriété amul loo ci may nit marge de manœuvre mais ñun dañoo maye marge de manœuvre am terme yoo xamante ne tamit tey suñu biir réew dañ koy jëfandikoo da ngay ñoomee président de la tuddee ko boroom réew mi soo ne borom réew mi moom moo moom moom li nekk ci réew mi kon nu ko neex lay doxalee ak yow mais tey jii bu fekkoon ne tey la population wane nañu assez de fermeté assez de responsabilité wan ne ñoom ñoo souverain le peuple kon tey pamata lii ñuy dund yëpp tey jii duñ fa àgg pam euh, bi fi agent de proximité yi Pape Sané mi ngi koy wax di doog a tàmbali dañ koo kaas rek jàll bàyyi ko mu sedd te pourtant autant bi ñu bëggee jël les calots bleus leen la gendarmerie avait dit ñett tey jii pourquoi de manière détournée ces ASP là on les intègre parce que suñu nee ministre auprès du ministre de l'intérieur c'est parce que ñooñu yaa ngi leen di légitimer yaa ngi leen di jox yenn grade yi yaa ngi leen di jox yenn ndombal tànk yi hmm. et ils vont servir à quoi est-ce que définir nañu ñooñu lan mooy doon seen liggéey ak seen taxawaay ci biir réew mi Pamata Mm-hmm. de ce fait yooyu yëpp moom moo découlé ci tey li nga xamante ne tey lii la ñuy dund pamata mm-hmm. bu ñu demee nag ba nga xamante ne dañ fi bëgg a instaurer la loi du talion mm-hmm. il y quoi avoir peur ci li nga xamante ne moo di dëkk bi parce que ces jeunes la ne vont plus se laisser faire et il faut pas oublier que tey ndaw yi ñu am tey jii ils son tellement éveillés ba nga xamante ne ragalatuñu dee du ndax dee la ñu yem nangootuñu esclave nekk esclave ci seen biir réew ñu leen di noot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 ku jiite même mairie sax waxutuma la réew mais mairie sax waroo waxee noonu le problème euh, man nag euh, question bu may posé wu mooy qu'est-ce qui va se passer si fan yi di ñëw ba tax moom mu jàpp ne que dañu les maires laa dañu war a organiser pour dañu war a organiser pour pour euh, jéem a sàmm seen alal ak xaw ma lan. mooy dire que il va se passer. Eh, eh, eh, Georges li ci gën a garaaw ci li ngay wax nii mooy que moom ba muy daaneel discours am da leen ni fàttaliku leen. li ma leen wax waaw donc donc ça veut dire que. insisté na ci li ma li ma jàpp mooy li ma jàpp mooy. xanaa daa war a am loo xam ne sera extraordinaire lu war a xew si fan yii di ñëw wala si heure yii di ñëw ba tax mu ne leen yéen maire yi fi nekk ak président conseil départemental yi fi nekk. Mhm. waajal leen seen bopp dem leen wut seen euh, comité d' autodéfense comme comme on en a vu un peu partout mhm. quelquefois en Afrique mais loolu da c' est c' un danger je crois que Pape Sane wax na ko léegi. am na ñoo xam ne loi moo leen jox liggéey boobu ñu leen di fay ay salaire pour loolu ñooñu ñëpp xam nañ leen léegi ñi nga xam ne nag un maire gisuma ban mais depuis quand un maire s'occupe d'ailleurs de la sécurité euh, de de, de sa maire yow da nga da nga yaakaar ne euh, les les maires là ñoo ñoo ñoo yore ñoo ñoo jox mën nañu jox ordre benn commissariat de police wala seen euh, kii wala seen kii brigade gendarmerie bi rek seen gox ne ko demal liggéey lii. <laughs> Georges maire <laughs> maire point E bi Fatou nu mu tudd. Pala Pala Sam Sam bi Covid bi amee. c'est le mair de la commune ah. Covid bi am ñu ne dañuy def euh, couvre-feu à partir de vingt heures noonu la woon de vingt heures. Mm-hmm. Mm-hmm. le maire bi nga xam ne mooy jiite commune bi. Mm-hmm. génn pour xool commune bi euh, euh, def ay poudre xaw ma poudre yooyu ñu doon sotti xaw ma. affaire yooyu mais mais alkaati yi nekk point ñoo ko ñoo ko dogale. non mais parce que que ne ko amoo droit génn c'est c'est le maire de la commune. parce que parce que les ku nekk xam nga sa rôle lan mooy sa lan mooy sa rôle ñoom ñoom xam nañ ko dem nag dinaan yéen maire yi dem leen di recruter ay nervi yi parce que noonu laa leen mën a tuddee. parce que dama xamul nag ndax mair yooyu noonu dañuy recruter ay nervi yi wutal leen ay pistole wala ay jaasi lañ leen jox wala ay yat lañ leen di jox. wala ay xeer la ñuy dem fori fële si BRT bi ñëw jàll ko si buntu mairie bi man dama xamul ban façon protection la wala leneen dugal ay saalu karaté temps yi le temps que <laughs> ñii def boxe ñii di karaté. wala wala ci kii ah, ah, école de lutte. waaw wala ñu nekk école de lutte man dama xamul nag ñoom ñoom ñooñu ban stratégie la ñu war a am parce que moom xanaa moom ci moom war na leen jox stratégie daal ban stratégie la ñu nar a aaree seeni i gox yi. loolu yaakaar naa wax boobu wax boobu war woon euh, vraiment jóge si ndaje boobu te li ma si jàngat rek mooy gis nga. nguur buy jeexal. parfois insolence boobu ak arrogance boobu lay am. xam nga de am na benn wax bi ma dégg foofu keroog samedi bi toujours samedi bi rek si euh, fële ca pale ñu ne xam ngeen ne ñun ñoo fi ne. keneen nekku fi. donc c'est-à-dire que yow opposition bi comme ni nga waxee rek dañ ko réduire à sa plus simple expression. parce que boo waxee ne kenn nekku fi yow yaa fi ne. ma yaakaar ne loolu boo ko waxee wóolu nga sa bopp. Mhm. te langage boobu da c'est pas une première daawoon nañ ko dégg y a rien devant moi j'ai mm. pas j'ai pas d'adversaire mm. <laughs> mais pourtant adversaire moo ko daan mm. donc nguur day toll foo xam ne insolence ak euh, agressivité buy nar daanu moom moom ay langage yooyu ngay gis mm-hmm. ay langage yooyu ngay dégg ay actes yooyu ngay kii parce que non seulement ñi fa nekk ñoo xam ne ñoo ñoo ñoo jiite xoolatuñu dañuy dem ba dootuñu xool lan mooy njëriñu askan wi wala intérêt askan mais seen intérêt bopp la ñuy jiital te loolu mooy waral nag parfois Euh, dañuy piétiner ak ak yelleefu askan wi jiital seen i parce que <laughs> la preuve c'est que quand on réunit même s'ils étaient cinq cent personnes à mhm. <laughs> suppose même que ñu ne maire Sénégal yëpp ñun ñoo leen moom ñu tase foofu ñoom war nañu xam ne ils représentent rien devant les les million de Sénégalais les 17 ou 18 millions de Sénégalais mhm. loolu moom képp koo xam ne da ngay jiite réew da ko war a associer di calculer di naan man fi ma nekk nii amatum lu may njuuj njaaj comme ni ma ko waxee amut du ma bëgg su ma réew mii su ma koy bàyyi su ma koy bàyyi keneen niñ ma ko joxe woon noonu laa koy joxe réew kenn tu ko jiiteeg doole mais 17 millions de Sénégal ngeen ne par force maa di jiite. Mhm. loolu kay dictature lañ koy gis. mais yow même boo leen bëggee jiite ne leen mais yéen kaay leen ñu waxtaan est-ce que man ak li mu leen wax yëpp mën a taan a su ma jàppee na yéen mënatuma leen jiite. boo àndee fukki nit sax nga jékki-jékki ñoom boo àndee ni ñu de dem fale boo waxee lee duñ la déglu nga ne yéen kat mënatuma leen jiite demal ku nekk na demal su boppam je crois que ça c'est euh, la stratégie qu'il fallait mais ne ce n'est pas toog ak ay ne leen wut leen ay yat xaw ma ay xaw ma jaas xaw ma lan ku dugg seen koñ mais boobu ça va finir comme li nga li ngay gis bu boobaa nag xanaa alkaati yeeg gendarme dañuy toog fële dugg seen caserne ak seen commissariat croiser les bras ku ñu gaañ nga ñu door a intervenir wala ku ñu rey ñu door a intervenir peut-être loolu la loolu la ñuy def mm-hmm. je crois que boobu et ça a été dénoncé par Seydi Gassama ak yeneen gars yoo xam ne yeneen autorités yoo xam ne mm-hmm. bàyyi nañ sa xel j'ai vu le poste Seydi Gassama bu muy naan ce que ce a été dit au c'est extrêmement ah, grave parce que là kenn xamul si lu muy lu muy la tribune aussi def na ko une ah voilà donc loolu c'est extrêmement grave parce que loolu mën na jur musiba boo xam ne des dangers incalculables mm-hmm. parce que bu ko defee mooy ne Sénégalais bu nekk kon wut sa propre sécurité personnelle c'est pas seulement les maires maintenant qui vont recruter des nervis Sénégal am rek mën nga recruter sa sa garde du corps dem te Georges peut-être bu fekkoon ne le président de la République dafa dafa jiite woon réew moo xam ne dañu dem ba ne les forces de défense et de sécurité lott nañ pour sécuriser nit ñi ak seen i mënatuñu mënatuñu mais Sénégal fii da ngay gis manifestation bu fi am li jàppante bi di metti di metti di metti yëpp alkaati yi danañ fa danañ fa nekk di def li ñu mën tey si Sénégal gii combien de fois nga fi dégg ñu ne la jàpp nañ benn waay fële parce que dañoo dañoo dégg ci benn groupe WhatsApp wala ci benn kii wala ci benn poste bu mu def ne nañ nañu dal fii wala ñu dal fële. c'est vrai alkaati bés bu nekk ñi ngi jàpp. Mm-hmm. mais dans ce pays là euh, la mooy des choses c'est de se dire. Écoutez, on a des forces de défense et de sécurité capables de faire le travail. Oui. Faisons leur confiance, ils continuent de fair le travail. Mmh. mais su fekkee ne malgré tout ça ak moyens yi ñu jox les forces de défense et de sécurité yëpp. ñi ngi wax ay maire ak i président de conseil naan leen jël leen seen disposition pour protéger seen ay gox mais man comme dit Georges tu mais comment est-ce qu'ils vont protéger seen ay gox. Mhm. comment est-ce qu'ils vont protéger gox koo xam ne yow loi mayu la nga yor yat di dox ci mbedd mi loi mayu la nga yor jaasi loi mayu la nga yor fetal loi tere na ngay sànni nit ñi ay xeer loi tere na ay pneu léegi si tu veux protéger la mairie de de de kii là de de de de Derklé là qu'est-ce qu'on va dañuy dem taxaw ci bunt bi ñëpp yor yat ki fa utiliser woon prétexte boobu ñu ngi koy fàtteeku di Bamba Fall li ci mujj mooy euh, benn nit bu si ñàkk ba xam mais Barthélémy Diaz Mermoz Sacré-Cœur de ay ay nervi ñoo jógee euh, ci banlieue bi lañu wax. ñëw song ko qu'est-ce que Barthélemy a dit légitime défense la woon. moo tax mu génne fetal jàkkaarloo ak ñoom fan la mujjee. qu'est-ce qui s'est passé doomu aadama moo faat. mais Sénégal c'est comme si ñun li ñu vivre il y a dix quinze ans c'est comme si c'était en mille neuf cent quoi wala avant la guerre mondiale ñun fàtte nañ ko alors que xale yii yu ndaw yii di nekk ci réseaux sociaux yi il se rappelle très bien de ça tey jii bu ñu tijjee kese euh, tàppe euh, Mermoz Sacré-Cœur danañ gis l'histoire qui s'est passée là-bas

réduire les dégâts parfois mhm. nag moom ay ko santee civil voilà fàtte ko bàyyi ñu fàttali ko mais Pape Matar oui oui non mais ma rek mais man nag dama jàpp ni que cette sortie du président là ah, c'est ah. c'est un aveu de taille ah. c'est un aveu de taille waaw déglu ko ba waaw